la principale actualité mën nañu jàpp ne mooy la transhumance en tout cas ci langue politique bi ñu ngi koy layalee nu ne nag euh, muy du transhumance ak euh, boo ñëwee jënd carte ci ngay nekk euh, transhumant yu mel noonu naka nga ko jàngatee de façon globale. man de la vague de transhumance me choque. Hmm. ndaxte pour man jàpp naa ne c'est la pratique la plus détestable. Hmm. maanaam fii ci suñu réew parce que du benn Sénégal ñi nga xam ne dañ fi jotoon transhumé. Hmm. dañoo dégg lu ne. tam nañu leen wax nañ leen lu nekk ci réew mi parce que dañu dem transhumé ci mhm. li ma doon wax naan dara mënul bon démb tey mu baax c'est ce qui ont prôné aujourd'hui c'est ce qui les accueille waruñu prôner cette transhumance parce que Ousmane Sonko moom moo taxaw ne képp koo xamante ne fi nga nekkoon yaa nga fa bala le 24 mars mhm. na nga fa toog bul ñëw te loolu mooy dëgg mhm. mais malheureusement li nga gis mooy aujourd'hui ñoo xamante ba keroog le mars ils ont été Miss de la République nga jël Galoba à Mbacké nga xamante président Macky Sall même bi muy def le remaniement bi nga xam ne mi ngi ko def le mars muy le dernier remaniement mu da ko bàyyi ci postam nga jël Doura Baldé bi nga xamante ne LONASE tey fa génn nekk aujourd'hui ci parti Pastef moom moo wax sa gestion bi nga xamante ne lu gestion bu baax kooku nga gis ko loolu mu nga xam ne mooy intégrité mhm. nit ñi nangul leen ko parce que li fi jot a am yooyu noonu yëpp nga gis nit kooku mu affiché wu seen côté gis Mame Boye mhm. gis ñoo xamante ne bi Sénégal gënee metti muy mars mais dañ doon daw ci plateau yi pour charger Ousmane Sonko mhm. ñoo xamante ne tey bu fekkoon na ñoom kese la tey ce pouvoir là bu leen Sénégalais yi déggaloon ñooñu kon tey pouvoir bi tey Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye du ko jot banaan mi ngi jiite réew yow kese mais non seulement dangay dem mais tu demandes à tes militants de voter li nga xam ne moom mooy liste Pastef yamuloo ci yow dañ la investir sur une liste boo xam ne da ko bokk ak say nawle malheureusement hmm. dañu dem ba la politique dañ ko ci bëgg a dindi morale je le dis et je le répète la politique elle est d'abord morale nañu fexe ba les valeurs yi nga xamante ne Sénégal daf ko am Sénégal moomal ko boppam buñ ko yàq ndax politique buñ ko mhm. salteel ndax politique parce que ñii politique ay nit lañu ci société bi la bokk et ces valeurs là ñoom dañu war a bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy préserver malheureusement préserver wuñu ko mhm. et je dis aujourd'hui que c'est malheureux que ñu yegg si waat encore man jàppoon ne pratique boobu mhm. du amati et que ceux aujourd'hui qui sont au pouvoir permettre euh, transhumance yi euh, ñu bannir ko parce que ni mu ko waxee da gis ay ministre de la république càmbara guñ leen sax ca département yi ñu nekkoon ñu rallier lan la nëbb lan la ñuy tiit c'est des questionnements. Euh, en tout cas c'était à moitié réglé mooy bi ñu waxee ne boo jógee ci sa parti politique nga démissionné mënuloo da ngay par exemple sa mandat député en partie réglé woon nekk peut-être sóoraale wu ñu woon les coalitions et intercoalitions ñan xale xamul yàlla waaye xam na yar quel que soit kiy dem ni ngay demee noo ko mun a layalee le sénégalais moo toppatul souvent le leader politique dafa yeewu ne ci yu mel noonu boo demee. Hmm. yow dégg nga yow yaay dem ak sa carte électeur euh, mais ñi nga xam ne ñoom ñoo war a voté ñoom ils sont assez conscients pour xam ne hmm. ban position la ñuy. c'est ça ñu delluwaat ca Tambacounda bi la yoon nag wax ci euh, retrait carte électeur yi nga xam ne yéex na lool jàppale ne ay téeméer ak i téeméeri carte ma nga foofee euh, seen i borom leen ba léegi ay low carte 2017 préfet bi moo nu ko xamle di euh, Badara Meng ñu teelu ko ñuy def li ñuy tuddee révision exceptionnelle ba nga xam ni day permettre nit ñi ñu bindu xale yi soog a ñëw mooy les primo votants di permettre aussi ñi nga xam ni dañuy changer adresse électorale ñu def ko mais contexte ren bi situation particulière la ndax euh, élection anticipée la moo tax a jotul am révision loolu nag dafay jouer ci retrait carte yi waaye taxul nag ni gis nañ ni ci préfecture ba wala ci sous préfecture yi bëri na ay carte yoo xam ne ñu ngi fa te seeni borom jël ci wuñ ko loolu nag euh, vraiment appel bu ñuy lancé la pour nit ñi gën a mën a ñëw jël seen carte ndax am na ay carte yoo xam ne depuis deux 2017 la ak euh, révision yi si topp yëpp boobu ba léegi donc ñu ngi fa di xaar seen borom ñëw jël ko alors Fatou bu rôle état la ak société civile bi euh, ci ñu euh, gën di sensibiliser ñu jëli carte électeurs yi mais surtout euh, est-ce que warul doon rôle ñi nga xam ne ay candidats la ñu nekk ci terrain bi en lieu et place violence verbale bi ñuy soññ sax ndaw ñi ñu dem jëli ji seen carte yi nekk en souffrance ci préfecture yi. mais mais loolu moom mooy yoon et malheureusement. l'histoire a montré que ne boo dee seet lu toll ci vingt pour cent des cas des personnes yi nga xamante ne boole des inscrits. du ñu nga xam ne yenn société civile def ci dellu si di ko wax ñoom également les acteurs politiques doivent jouer leur partition ci loolu parce que c'est vrai dem campagne baax na taxaw xuppante baax na yenn saa ñu tooñante comme ni ko Khalifa doon waxee euh, loolu sax neex na parce que c'est le charme d'ailleurs de cette campagne électorale hmm. wax ci programme am na solo mais diir également aux militants wala sénégalais yi nga xam ne seen i la ne leen dem leen ngeen jëli seen ay carte électeur parce que wax ji wax ji yëpp hmm. euh, lii fa muy yem mooy le 16 maanaam bu ñu demee le 17 moom li ñuy wax naan euh, euh, ñi ngi ci mañ gàcce gi hmm. kenn ku ci nekk daanaka sa mbër day taxaw pour dem donc sénégalais yi dem jëli seen ay carte dem voté ji surtout ñi nga xamante ne seen carte yi wax na ko léegi le préfet c'est depuis 2017 mu nekk en souffrance hmm. dans les préfectures ñu teewal leen ci pencum ndaw réew mi ngi et dans beaucoup de aussi constat bi euh, moom la ñuy évidemment lu jëm ci carte yi ñu ngi ñu ngi dëggantaan ci préfecture yi. man de damaa gëm ne euh, citoyenneté moom dafa war a ànd ak li nga xam ne mooy responsabilité Mouhamed boo demee ci euh, bureau de passeport dafa fekk benn passeport en souffrance. c'est parce que ah. citoyen bi dafa débourser vingt mille francs yam bul ko ci bu fekkee nag réew mi lépp dafa bugg a ci yow doo xam la valeur poos pour mën a fay say say jàng hmm. day tax nga gën ko responsabiliser euh, respecté mais bu fekkee dafay yomb ci yow dafay wàññi qualité wu peut-être euh, li nga xam ne moo moo doonoon loo xam ne sa devoir la mu doon sa sa droit bu fekkee daan nay ci euh, am beneen moyen boo xam ne ne fexe ba le citoyen muy ànd ak citoyen tam di ànd ak une responsabilité boo xam ne waratoo xaar le politicien mu lay encourager pour nga dem jëli sa carte électeur mais yow yaa war a sentir sa intérêt que ne su ma jógee dem jëli sama carte électeur le jour ma dem voter ça va impacter sur mon boobu tant société wuñ ko ci hmm. les cartes vont continuer jafe-jafe dëgg lay doon ñu wax travailleuses euh, sphère politique yi mu mel ni initiative bu am solo la tukkee ci réseau national des femmes travailleuses euh, du euh, Sénégal ak fondation Frédéric Ebert bu ñu sukkandikoo ci RENAFES déficit d'accompagnement bi mooy freiné lu ci ëpp jigéen ñi ci seen ay essor jëm ci instance de décision yi boobu léegi ndaje Tidiane Diallo Germaine Dior ñoo ñu fa teewal ngir ñu mun a accédé ci instance de décision yi suñu sukkandikoo ci réseau national des femmes travailleuses du Sénégal. am laa wax mooy maternité bi dinañ si xalaat dinañ si réfléchir dinañ si waxtaan beneen fa beneen facteur bi mooy tey jii suñu prise en charge économique bi pose un véritable problème ñu ne loolu aussi facteur bi ñuy bloqué la ñuy ne dinañu réfléchir naka la ñu war a mun a liggéeyee am formation ba bokk si lépp. ndaje bu ñu doon amal tey ak partenaires yi na RENAPES ñu ngi plaider ngir partenaires yi accompagner jigéen yi. il faut ñu am ay crèche il faut ñu ñu liggéey ba fexe ba liggéey bi mu njëriñ ñun jigéen ñi ñu bàyyi aussi instance yëpp ñu war fa mën a nekk politique syndicalement fépp. waa fondation Friedrich Ebert ñoom nag nee nañu pare nañu ngir ñu gunge jigéen ñi ngir ñu mun a teew ci instance de décision yi. Diallo jërëjëf ñu dem ca Thiès foofee nag ay contractuels yi ne ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène euh, na nuy taxawal ab euh, euh, syndicat mu mel ni kon ci ab assemblée générale lañu ci daal di tabbe syndicat boobe soxal section cadre liggéeykatu santé yi ne ci boobu lekk bërëbu liggéeykaay di l'hôpital ci assemblée générale boobe liggéeykat yi daal nañ ci soulever yeneen ci ay revendications yi nga xam ne bokk na ci généralisation ou formation ak indemnité de garde de nuit surtout yu ci ci 1000 francs ak euh, ñu jàpp ne dafa dafa néew lool euh, ñu teewlu ci Pierre Claver Pouy mbaytal xuma ñoo leen seet yoon juróom fukk liggéeykat yi nekk ci wàllum wér-gu-yaram bi taxawal syndicat bi di cadre de travailleurs de la santé li ko tax a nag moo di xeex